acca Pape Dianka Baba Jaxal ci diggi géew bi mooy bàkk noonu di dem ngembal ngembul xonq li nee na ko gaawal heure jot na Baba Jaxal mooy leget di ko xëppoo noonu moom Baba Jaxal si wo ba koy xëppoo Pape Dianka ngi topp si eh, moom Baba Jaxal ñu koy sotti butéel Baba Jaxal am na lu muy joxaat nañ ko siwo boyel moom Baba Jaxal mi ngi sangoo ba léegi Baba Jaxal mooy sangu noonu ngémbo ngémb lu xonq li ñoom ñaar ñoo ñu noo ngémb Baba Jaxal ndox bu ñuul kukk lay xëppoo dëppoo leget ba dëppoo ko mu ngay daw di wër géew mu ngay daw di wër Pape Diakha génn na Jaxal mooy daw di wër géew noonu moo jàkkaarloog yéen moom Baba Jaxal nu mu koy def Baba Jaxal ba tey mu ngi ci dernier bouteille yi ñu ngi wax moom ñu ngi jox nañ ko benn bouteille bu zone moom Baba Jaxal bouteille bu zone lay wax mu koy naan mu ngi ciy naan bouteille bi lan la zile wala xëppoo ko li des ko li des mu ngi koy xëppoo Pape Dianka pare na Baba Jaxal a ngi daw di dem Baba Jaxal jëlal Pape Dianka eh, waaye lamb neex na eh, laalal na ko de galaaj la wala am na lum ko jox Pape Dianka nangu na ko sànni na ko eh, lamb ji neex na ñaari xale yaa ngi yëngal ci digg géew bi Pape Dianka nangu na ko sànni ko Pape Dianka Baba Jaxal mu ngi ay Senghor ba tey mu ngi ci bagage yi socc la seex socc la wala lan la moom Baba Diakhal mu ngi moosa bu xonq ci loxo bi mu ngi moosa bu xonq ci loxo bi moosa bu weex ñu ngi koy takkal Senghor moom Baba Diakhal waaye Pape Dianka pare na moom mu ngi def ay échauffement moom Pape Dianka doomu Niary Tally Grand Dakar bi waaye gone sam-sam Thiaroye Gare xale mbedd bi mu ngi takk kan Baba Jaxal a noonu ñu koy wax Baba Wëndëng mu war a bëreeg Pape Diakha xale baa ngi noonu Pape Diakha at Baba Wëndëng combat espoir combat phénomène la Baba Dia Pape Diakha Jaxal la waaw Pape Diakha mooy dem noonu Baba Diakhal moo nekk nii moo takk bopp waaw nekk combat espoir nekk ñaari xale mu ne ko mu ne nga waaye sil baa nii taxaw waaye sil baa nii taxaw <laughs> waaye dama gis satala sa satala man pour jàpp daa nga xam ne <laughs> waaye mais Père Sall ñaari xale yi noo ko jàngatee. waaw bu équilibré la ci neex mooy. nga boole ñaari xale yu tolloo xam-xam day génn amateur koo xool kontaan moo tax Baba Diakhal ak euh, Pape Pape Dianga seen tur sax daaw wuyu seen jëmm ndax ñoom ñaar ay bërëkat lañ te xam naa su arbitre sifflé tuuti day gis combat bu doy waar. ba ba ba Pape Dianga mii Baba Diakhal saa ñu ko doole tuuti. waaw da ko sur relance mais xale soo xoolee xam ne ku dëgër la te li ñuy wax naan doo euh, dëgër moo gën dëgër. do kii euh, di ji moo gën euh, ni ko waxee. di ji moo gën waaw te xale ba soo xoolee xam na dafa dëgër waaye Pape Diakha tamit ikir bu mag la nekk kii moom tamit di Baba Baba Diakhal gis nga ko moom mbër waane la gis nga sànni ñëpp tax mi waaw ay supporter am te nee naa la mbër bu ñëw ci ci ci stade mbooloo mi topp ko am na lu ñu ko toppee. di cuune toppal lañ la mën a bëre wala nga yaru wala nga wane loo xamante ni tax nañu topp la moo tax lamb mbër moo gis mbooloo topp ko dafa attention ci idi waaw kooku sama papa Sall Bala moo loolu Jaxal am na avertissement Baba Jaxal am na avertissement am na ñaari avertissement saan at bi mu ngi lamb nangoon lamb bañ ndeysaan Baba Jaxal ak Pape Jaxal ñoom ñaar ñëpp dama leen seeti ñu xas-xas loo ndeysaan kii ne ko yow ëmbe nga waaye sil baa nga nii taxaw mu ne ko doxal ñu dem bu jour baa ngay xam man maay kan saan Pape Diakha ah, Baba Diakhal nekk ñaari espoir nekk ñaari ndaanaan nekk ñaari xale yoo xam ne ku ne yaa ngi jat eh, ku ne yaa ngi jat saan ku ne yaa ngi jat kabar na ko Pape Diakha mi ngi kabar waaye kabar nga sa julli woo waaye Baba Diakhal saan Baba Diakhal dox na ut jeex pas arrière taxawaat changement de pied arbitre ndeysaan xale yaa ngi mais xale yi ñëwante nañ Pape Diankha ak Baba Diakhal gonek Samsam bi la gonek tëri Maam Jaara gi waaye gonek Grand Dakar gi gonek Bijouterie gi la ndeysaan saan combat bi combat espoir la moo fi indi amateur yëpp ndax combat boo xam ne si ñoom ñaar ñëpp combat déclenchement la fi ñu toll nii daan da dem waaye ku daanu da ngay xaar. saan diggante Baba Diakhal ak Pape Diankha saan xale yaa ngi lewtoo at bi baa ngi wax ñoom nee na bëre saan Baba Diakhal Pape Diankha saan Baba eh, def na tek Baba daa def tek di lewtoo Baba Diakhal Pape Diankha Baba wàcc na ba tolloog moom waaye Pape Diallo daa gën a wàcc tan tolloog moom. bàyyi leen tooñ. tontu gàllaaj bàyyi leen tooñ. kii mooy Alaaji Maas borom ñaari galon yi. Serigne Mame Diarra ngi nii at Assou Ndiaye baaxul as góor du <laughs> saan <laughs> Baba Diakhal ak Pape Diakha saan xale yaa ngi lewtoo ñoom ñaar mu nekk ñaari xale nekk ñaari ñaandaan waaye kenn du sofi si mim réew sofi fi nga génn faatu rafet na xol sedd na waaye sofi yàlla sa jàmm yàgg kenn du moom si mim réew waaye kenn du séeri buur caat xale yaa ngi newoon si géew gi ay mas la ma fa añ. moo fa tege. Kaldoula. Kaldoula. saa yi fa demee Kaldoula tombé nag. li mu ngi. ba ma laajte kaani ñoom ñaar ku ne am nga avertissement. Papa ngi dox utali ko. Papa ngi dox utali ko. mais père avertissement yi ñu jox xale yi nii. wàññi dugg seen xaalis. non du dugg seen xaalis. avertissement yi fii ak matul ñett rek ah jàppoo nañ jàppoon nañ feeg matul ñett rek avertissement yi du dugg sa xaalis. waaye mel ni Pape Diakha mi ngi rokos. waaw mi ngi dóor. dóor de. waaw eh waaye Baba ngi fayu. loolu mooy ubbi bunt. waaw ah, mooy ubbi bunt. ñoom ñaar ku ci nekk da ngaa tëj sa bunt. lu koy ubbi nag mooy ah, kurpañ yi. ba kaaw am. waaw kaaw mën naa am ku ci nekk soo xamee fi ngay dóor. waaw ah. làmb naa jeexee ci xeex. ndax Baba Diakha Baba Diakha bi mu fi mujj daa dóor ren di seeg ban dang ko si ay loxoom. waaw xam naa ne ñam mu neex mbokk ca doole loxoom. waaye adversaire bàyyiwu ko ak moom de ndax fu door bu doole fayoo ko tasoon. maa la wax lii. <laughs> koo sama papa Salma mu sab nekk ba la ginnaaw raay nasaan mu sama papa di suma xarit di suma conseiller ma ko ñaanal fan bu gudd rek at gu yaram di ko ñaanal yàgg si moom. waaw ndax euh, ñun bu ñu ñemee ñoom ñoo tax ñoo ñu doy bañ egg si fii tey waaye ñaari xale yaa ngi noonu si géew gi ñamante ñoom ñaar saan Baba Jaxal ak Pape Diakha jàppante nañ ñoom ñaar waaye eh, su ñu ngi suroxal pousse machine yi suuf pousse machine yi suuf père pousse machine yooyu bëgguma ko. Eh, eh, ay ay pousse vinde wala saaro. kay gën a saaro. <laughs> machine yooyu bëgguma ko. yooyu mooy pousse du du du pousse téer. wala pousse ngaax bi ñëw saako yi. laa ilaaha illallah kooku mooy puso ngaax. moom la ñuy wax ngaax. xam nga xale yi xamuñu ngaax. xamuñu ngaax. <laughs> classe kii saan. <laughs> Pape Diakha du am. saan Pape Diakha mi ngi koy fàq waaye fi mu jàpp Senghor la. waaw Senghor rek laa rek soo ci jàppee da nga war a saal sa loxo jàpp foofu ba mu baax nga jugal sa beneen loxo soo ko foofu mais soo ci defee prise mën naa yuddee ko su yuddee ko daanu. moo soo xoolee da koy bàyyi ba mu Papa Diakhal da koy mu jàpp Papa Diakhal Papa Diakhal day dugg mu ko mu rocc waat bopp bi ndax fi mu jàpp Senghor la. waaye gis nga Papa Diakhal bërekat la. bërekat la Papa Diakhal tamit la ndax dafa jàpp ba pare ros. dégg ngeen. waaw mooy rasu mooy rasu. sa a sa a ma mag ñi daan leen ñu wax a rasu ci doy na a rasu doy na mbër waaw. xale yi tey nañu ak mbër. maa la wax li xale yi dañoo waane si bëre. mais Baba dafa a jaxasoo ci combat bi. fu mu jàpp moo baaxul. Pape Diakha da koo xaw a kale eh, am na génnu ngem. am waaye bàyyiwaat soo xoolee kii di Pape Diakha dafa jàpp si dëndu ngemb li. waaw li waaw. ba pare ndengeñ. sama xel lay dem si sos guy gi. waaw. sama xel dafa dem si sos guy gi. fi mu toll damay xalaat Baba Diakhal siggee mu daw euh, ku ci nekk yaa ngi jox sa mën na fi da ngay xalaat su defee prise ñu contrôlé la moo tax ku ci nekk da ngay togg ba mu ñor nga soog a yëg. soo xoolee Pape Diakha fi mu jàpp nii pour man changer pied daw dóor tànk mu daw jàll nga daw yooru si loxo bi mu dóor épaule. laay xale duñ def loolu loolu ku wóolu soo bopp dëkk am ay ndoxtu moo koy def loolu bërëbu sew la. bërëbu sew la xoolal xanaa gisuñu seen. <laughs> waaye dafa mel ni Pape Diakha am na ngeen père. am na ngeen waaw. soo xoolee toujours Pape Diakha fi mu jàpp. arrangé wul Baba Diakhal. ba ba Pape Diakhal la laa lay xamal deful daraay gone. déedéet yu fi mag la ngay def fu mu ne nii. kii bu mag la jugee. ma ngoog. kii du Baxa Sarr la hmm. naar ko indi. booy naar ndeysaan. waaw kon xale yi tey dañoo ñëwee mag waaye ay xale lañ. Hmm. waaye dokos bi. cin lu këpp moo ko jëpp. Lacoste bi ay cin lu këpp moo ko këpp. maa la wax li saan Pape Diakha Baba Diakhal ñoom ñaar dama leen seeti ñu xas xas loo côté bu nekk Pape Diakha ne ko dama tardé si làmb moo tax ma jël la Baba ne ko dafay gën a tardé. Eh? mu ne ko sama tardement du mu ne ko école moo ñu boole waaye classe boole wuñu. maa la wax li cour bi la ñuy génn tase waaye xale Baba Diakhal dafa mel ni am na ngemb. am na ngemb am na ngemb li mu bëggoon am na ko. mu ngi hypercule suuf nag bu bi. waaye ba léegi loxo bi jàppagul li mu bëgg. xañ na ko nag la mu jàppoon xañ na ko. waaye dafa mel ni mu ngi fayu. ba xar jëppantu am. waaw. Eh, mi ngi doon ba kaaw du am. tajale eh, na ko. dex na ko daan na ko. Morog Pape na ko. ay eh, waay xoolal ma xale bi ay waay xoolal ma xale bi la bi kii mooy Pape Wonde bi. da koo dajale da ba mat. Moussa Ndoye Félix bi. jëlal na la. oh xale yaa ngi noonu di dem. espoir la. xale yaa ngi noonu. oh xale yi ñoo bàyyeekoo sam-sam. xale yi ñoo bàyyeekoo Télé Mame Diarra. xale yi ñoo bàyyeekoo. oh xale yaa ngi noonu. kii mooy Papa Wondel. xale baa ngi noonu. idi lii lan la. idi lii lan la ci mbooloo. idi xale bi ñu bind lan la. Bilibili la sant yàlla rek sant yàlla kese nee naa ko dama koy lekk. dañ kaa yëy yëy. kii làmb ji maa ko dàq bëre maa ko ëpp doole maa mun làmb ji gàllaaj la ko teg te te ay sëriñam dañ kaa nax. maay wëndëng bi waa Baye Demba. ndeysaan dañ maa yeb dañ maa yeb mbooloo ma topp yëpp. kon du yoon may def yaa fuus billaahi lu may bëre billaahi bëree gu ma ko mais boo gisee ñi jëf di bëri di suñ temps ñu ñu topp moo tax moo dañuy def nànk-nànk mais bu jotee rek nañ ko wone sant yàlla rek bii mooy sama cinquième combat quatre victoires benn défaite ñi si kaw ñu si kaw nee naa la kii pour kii nii laamu boolewuñu woon mais ñu si kaw après boo ñëwee naa la